Euh, salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi koo xam ne nag kenn dootu ko présenté ci gall Galsen parce que def na fi ay preuve ci album ak EP yu mu génnee mixtape récemment mu génnee Yigo muy Akil wala Ekil man daal wax naa li ma sentir maa ngi lay bàyyi nga nuyoo internet ak say eh, maa ngi leen di nuyu nuyu ñëpp ñu seetaan di leen remercier si dalal bi ngeen ma dalal. Euh, di leen ne waa tey euh, Akil wala Ekil lañ fi dalal donc yow maa leen di ziar bu baax a baax. am mbégte nag dalal la Sénégal baa tiitoo ba nga ne jigéen mooy def interview parce que dañ naan ñun xamuñu dara si hip hop a priori yu bari yi nga xam ne nag dafa am wax dëgg yàlla <laughs> et euh, mais bon man am nga confiance bu baax bu baax. ñu dem kon <laughs> alors ñu ñu xam la ci en 2014 nga commencé sa carrière après si si réseaux sociaux yi ci ay freestyle yi nga jot a def. après nga jaar Reptile am nga ay album yi nga jot a génne mixtape ak euh, récemment nga génne Yugo alors Yugo bi. Euh, maa ngi seetaan nga ne mooy homme ci Soninké mën nga revenir un peu choix wu titre bi. waaw euh, comme ni nga ko waxee donc je vais commencer par dire que donc Yigo c'est un mot soninké mhm. comme langue natale donc euh, et ça signifie homme ça signifie góor daal tout simplement mm -hmm. et euh, pourquoi le choix de ce nom parce que tout le bon moo la boo xam ne je veux dire depuis le début de ma carrière dama ko yàgg di wax donc mhm. souvent man samay son dama fay cabaxal un peu soninké donc le mot yigo dafa dem ba collèment en quelque sorte et que donc nit yi autour de moi en tout cas ñëpp ñuy béggee le hip hop et tout. dañ ma ko xàmmee dañ ma ko ràññewee un peu et euh, pour man ba ma demee bay def sama album donc mu nekk benn projet boo xam ne projet bu euh, am solo ci si sama carrière et projet boo la boo xam ne direction bu ma ko bëgg a yëbb c'était un peu euh, histoire de parler de de de, de mon vécu de sama histoire, histoire un peu Donc j'ai considéré que c'était important Motuleko Yigo parce que de un, euh, c'est un clin d'œil donc à mes origines donc euh, mm. côté authenticité bob non de am mais aussi Yigo parce que là c'est ça sera un homme en fait qui va parler ça sera donc euh, boy bi parce que sama premier projet mu ngi tudd Isho Boy. Mm -hmm. deuxième bi tudd Yi euh, deuxième parce que la bi tudd Yigo. donc ça fait voilà boy boobu moo màgg tey ba doon un homme donc moo tax mu tuddee ko Yigo en quelque sorte. d' accord sama recherche xool naa un peu xool dugg sa YouTube dugg mm. sa ay affaire mm. Yigo bi gis naa ko nga def ko benn single en mm. est-ce que kon nouveauté indi nga ko. ci ci ci album peut-être contenu bi am na nouveauté. mais tour bi tàmm nañ ko ci yow gis naa si. Ego mhm. Trip mhm. gis naa si yooyu yëpp. donc euh, est-ce que cha mënoo woon changer tour bi par exemple. tuddee ko leneen loo xam ne. Euh, mhm. peut-être dina am beneen aspect bu ñu wala si si évidemment euh, questionné naa sama bopp ci loolu dans le sens où est-ce que le fait que am na son bu jot bu def donc en 2016 je sais plus bu tuddoon Ego est-ce que du ma poser problème et tout par rapport ak le choix mais euh, j'ai jugé que non en fait au contraire son boobu juste dafa participer si installer le nom au niveau dans le game tout simplement au niveau des de de de de, de je veux dire l'inconscient on va dire des gens mhm. donc euh, son boobu dafa participer un peu si installer moo boobu noonu ci euh, ci xelu nit ñi donc euh, le tout était tout simplement de préparer euh, nit yi à ce que tour boobu doon tour bu facile à capter pour ñëpp et que tour boo xam ne daf may coller tout simplement euh, pour sama projet donc oui j'y ai pensé je me suis dit que peut-être ça serait un peu problématique amoon son bu tuddoon Yigo et tout et puis ma ñëwaat tuddee album la mu Yigo mais euh, disons que j'ai pas trouvé mieux et je vous je je li ak li ma bëggoon ak direction bu ma bëggoon album bi am pour man tour boobu rek mooy tour bi nga xam ne ça collait vraiment avec ce que je voulais ce que je voulais aussi expliquer. est-ce ko bëgg a def sa keneen. exactement mu amee mouvement ne sama mouvement bi lii la tudd. exactement est que da nga loolu loolu am na désolé dogguma la donc c'est pour juste dire qu'en fait man. Euh, dama gëm ne en fait artiste nekkul tout simplement son bi ngay def wala ni ngay rabe wala ni ngay tegee mhm. euh, ci beat ou quoi que ce soit dafa am identité boo xam ne da war a wër donc identité aussi bien sur le plan vestimentaire sur le plan bu ñu la gisee rek on te remarque on sait directement kii kii la mais aussi sur le sur les les li ngay wax xam nga un peu les mots am na ay mots yoo xam ne man daf ma collé depuis le début par exemple boo déggee benn chboyan la direct on sait que wala boo déggee ana on sait que c'est Akil donc c'est des mots qui me Et euh, ça fait partie un peu de mon univers, si tu veux. Donc, c'est un peu tout cela. C'est un peu tout cela. C'est Hugo, donc, le ramenez-le. Euh, comme Ninkawaré, pour moi, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon de penser. Et là, Yigo, ça ne va pas juste dire gore pour être gore, mais c'est surtout un état d'esprit. Ko ramenez-le, toi, Dubaï. koo xam ne la xeexkat nga koo xam ne la euh, voilà dangay dem ba jeex da ngay daanu jugaat daanu jugaat donc c'est plus un état d'esprit que juste le fait d'être un homme ou d'être góor quoi tout simplement. ah aw ma occasion rek eh, déglu pour l'instant album mm-hmm. bi mais gis mm-hmm. xam naa ne 18 titres la. waaw 18 titres. Mm-hmm. Euh, xanaa dañuy toog journée <laughs> wala deux jours di ko déglu. pourtant bëriwul de une heure de temps la 18 titres la mais en une heure quatre minutes net la album bi di def. donc en une heure quatre alors album bi avant avant avant nga koy nga koy génne promotion bi yàgg na parce que j'ai vu mm-hmm. génne nga ay freestyle mm-hmm. balaa album bi di génn mm-hmm. ñu bëri ñu lay reproché nag ne promotion bi li nga ci def bëri na bëri na génne woon nga ay son et mais des na des na mm. par rapport ak yeneen album artistes yeneen yi suñuy génnee mm, mm. dañuy dafay am ci réseaux sociaux yi mm-hmm. partout dañ dañ koy waxtaane yàkkamti ko génne alors ba nga génne album ba tey est-ce que am nga si satisfaction est-ce que sentir na gars yi xaaroon nañ ko yeah je vais je vais rebondir déjà sur le fait que comme ni nga ko waxee promo bi gars yi nee nañ doy na mais ça, ça se, man, personnellement, je parle euh, par rapport à mon point de vue, on le disait euh, au début de la promo, mm -hmm. parce que c'était le début de la promo, mais bon, album bi warna yeg, euh, ken waxatul lolu en toute honnêteté parce que tout simplement voilà, on a réussi à saturer les réseaux, on a réussi aussi à communiquer de façon très très originale bi nga xam ne gars yi remarqué nañu en fait xam nañ ne ok là y a un truc qui arrive et euh, nii la tudd kii moo koy génne telle date lay génn mm. donc euh, côté boobu franchement euh, ça va ça va on s'est bien débrouillé malgré les circonstances muy donc Covid bi nga xam ne moo ngi fi et que donc on peut plus mm-hmm. communiquer de manière habituelle mais on a réussi quand même à bien faire passer le message sinon retour yi ba mu génn ak léegi alhamdulilah laay wax en toute honnêteté parce que les gens l'attendaient énormément comme ni nga ko waxee <laughs> yàgg nañ ci communiqué et c'était volontaire aussi c'est que vraiment on voulait vraiment créer cet engouement gars yi di ko xaar et que bu génnee gars yi song koo xër bu baax mhm. et euh, mun naa wax ni loolu lañ ci loolu lañ ci am loolu lañ ci am satisfaction bu baax a baax ça quoi quatre cinq jours ba projet bi génnee et booy xool par rapport ak retour yu ñu am yëpp par rapport ak euh, tous les jours gars yi nu ñu lay woowee fu nekk nit yoo xam ne on va dire que mosuñu d'accord sax limite ak li ngay def wala sa musique bi ngay def ñoo lay woowee fu nekk et euh, alhamdulilah en toute honnêteté alhamdulilah les retours sont très très très positifs euh, yàlla na continuer nii yàlla na lawee noonu quoi. d'accord euh, balaa album bi di génn gis nañ génne nga ci benn son benn extrait bi nga mm. defar ak OMG. loolu bon pour tax nga njëkk a parce que boobu amoon na xaw aw na polémique. Mm. boobu gis nañ nga ci nga ciy waaye euh, changer un peu de style. Mm, ba ñu bëri naan waroo album bi comme bi waa ji génn war a génne hip hop bu tàng bi nag. <laughs> nit ñi ne album daf nar a dox est-ce que son boobu c'était c'était bien choisi. waaw euh, bon stratégie la je pense comme tout projet question de. xool peut-être lan mooy gën a dox pour annoncer le projet mm. ça se réfléchit en équipe on s'est dit que voilà peut-être que son boobu c'est avec OMG c'est un son boo xam ne le style on va dire sénégalais lambda bi ku nga xam ne du déglu rap sax pour mu déglu ko c'est euh, c'est totalement possible. Donc on s'est dit que bon, va... exactement, c'est exactement ça. <laughs> L'idée c'est de communiquer, c'est de faire passer le message que album Begno derrière. Ouais. Donc on a opté pour ce son pour le sortir, mais en vrai euh, son Bob Blonde, c'est vrai que ça ne reflétait pas du tout le, le, la vraie couleur Binga Khamne Monek, c'est album B. C'était juste une façon pour nous de préparer le terrain, de de de de de faire passer le message que am na luy ñëw am na album buy ñëw et tout pour toucher le maximum de personnes donc son boobu c'était vraiment stratégique on l'a sorti et euh, comme ni nga ko waxee bon am na ñu doon ne ils attendaient autre chose. autre chose mais bon ça sera toujours le cas nit yi loo mënta génne ils te diront qu'ils attendaient autre chose et euh, je pense que quand même on a on réussi le pari de de de de faire passer l'info quoi qu'il en soit et euh, album bi génne je pense ça ça s'est vérifié quand même. nekk mu génn après nga génne benn euh, beneen clip bu ci topp Mr Cash nga ci bokkal ak One Lyrical mm. boobu euh, tamit son bi nga expliquer ñu un peu choix bi pourquoi nga génne ko après tout juste après sortie album bi boobu mooy euh, waa koñ ba mm-hmm. donc bu ma def ak Mr Cash ak One Lyrical sama sama frère donc du coup choix son boobu c'est son on va dire lu ñuy woowee banger la banger la tu vois gars yi dañ koy bëgg concert yi day dafay rëq à coup sûr. Mm-hmm. donc son la boo xam ne booy dañ ci dañ ci dañ ci yëngu on va dire donc l'idée que su album bi dafa génn l'idée c'est de quoi c'est de yëngal c'est de continuer di di di di di présent du di di voilà di di bouger loo ñëpp donc moo tax on a opté pour ce son euh, juste après la sortie du projet pour génne clipam et euh, gars yi kiifé nañ ko torop aussi et voilà ça ça ça ça marche bien. Mhm. Mm. benn question direct si 18 euh, titres yi nekk ci album bi. ban moo la ciy gën a ban mooy gën a wane ne. Mhm. kuy Hakill ban moo lay gën a présenté. deux bi la deux bi góor du jooy. góor du jooy waaw est-ce que mën nga ñu wax un peu benn benn couplet wala mm. benn bo benn phrase boo xam ne ça te touche vraiment ba koy bind. waaw euh, oh ma ma ma wax couplet bi quoi genre ok mhm. donc je jigéen du noppi góor du jooy moo tax ma soo ma dégg mais teg nga ma coono bu diis moo tax ma yéex a egg mais la ma ni nga doxalee ak ñun rek moo ma bett taxawaay exemple bi la waroon ci ñun dënk gerte gëj naa am nelaw yu doy ba may nekk liir tëdd di tiit xalaat mère bi ak booy xiif ci tàqul bi kër gi foog ma lijjanti ko sinon duñ am luñ def seen biir yónnee laa leen benn 5000 bi ma amoon xañ sama bopp jox leen suba beneen bis kër la kër location laa juddoo maa ngi ci ba tey weer ak weer ak gaaw borom kër bi la premier lay bëgg ngay fay xam naa luy fayoo bañ la nar a génnee xale laa woon mais maa liiral mère bi mère bi lettre d'expulsion bu huissier. bu ñu fa yamee donc je pense que déjà rek sa te met un peu dans je parle de moi, je de, mon, histoire, voilà, de son parcours, de, de qui me donne en réalité, tu vois, qui nga xamné peut-être du ñëpp ko xam du ñëpp ñi ma bëgg ñoo ko xam mhm. et euh, wala ñu may déglu donc là c'était l'occasion pour moi de parler de moi de parler d'où je viens mais surtout derrière le message que je voulais faire passer c'est que à tous ces jeunes qui m'écoutent à tous ces jeunes qui kiffent ce que je fais euh, gëm leen seen bopp en fait you know bu leen nangu kenn di leen ne vous pouvez pas le faire mun ngeen jugee plus bas que terre mun ngeen jóge fu doy waar fu yéeme mais voilà il suffit juste de croire en soi si man euh, mi sama voilà man akil bu ndaw bi mun naa ko kërti kërti ba egg fii n'importe qui peut le faire en fait le message derrière c'est surtout ça moo tax may raconter mon histoire de raconter euh, di raconter d'où je viens qui je qu'est-ce qui fait que je suis comme je suis actuellement. Donc c'est vraiment ça, son bobo. C'est bon. vrai que c'est gis nañu fii génne nga ko ci situation dëkk bi nu mu demee woon. Mm. bokk na son yu gën a marqué Sénégalais yi parce que mm. danga ko dem defee ci sur le terrain. fu affaire yi amoon. Mm. donc mu mel ne yéen rappeurs danga da nga bokk ci même su fekkee dañ naan akil <laughs> sol bi lay gën a kii <laughs> akil nii ak nii mais boobu tu présent. clairement euh, je pense que. par rapport ak ki ma doon ak fi ma jógee en fait mënu ma comment mënu ma nekk ku insensible à la réalité de ce qui se passe euh, sama dëkk en fait parce que je connais je le vis je l'ai vécu et loo xam ne la dama koy dund tous les jours en fait ak nit yi donc c'est clair que ni euh, bu ma gisee genre affaire yooyu noonu di am sama dëkk yoon la en fait pour man c'est même pas ça doit même pas être une surprise wala loo xam ne Euh, day day bett yi ma def ko c'est normal loo xam ne la j'ai envie de le faire je dois le faire donc je le fais mm-hmm. et euh, wax ci li nga xam ne dénoncer les choses dénoncer nu ñuy dundee dénoncer la précarité bi sénégalais yi nekkee ah. et euh, la situation du pays tout simplement donc voilà on l'a fait ci jamono yi manifestation yi alors que son boobu en vrai defoon nañ ko avant même les parce que ba may enregistrer sama album laa enregistrer son boobu noonu boobu manifestation yi amul woon sax manifestation yi ñëw mu tombé donc je me suis dit je vais le sortir depuis jamono boobu donc ñu génnee ko et puis le clip pareil ñu toog ma ne man dama bëgg dem tourner clip bi directement sur le terrain gars yi ne ma da nga xanaa euh, tim bi ne ma non loolu wóorul et tout ma leen si moi je vais aller le faire donc ma jóg dem def ko ñu génnee ko et puis les gens l'ont l'ont bien perçu le message mhm. surtout tu vois et euh, ce que je voulais faire passer man à travers côté image yooyu nga xam ne c'est sur le terrain c'est de montrer la réalité li nga xam ne moo am parce que c'est bien beau defe ko subir studio wala feneen mais moi je voulais montrer ce qu'il en est réellement en fait lan moo waral nit yi di wàcc di di di xeex di xam nga toll fi ñu toll maanaam ras le bu ñu nekkee en fait c'est vraiment ça Mm-hmm. Mm. mu mel ne kon album bi ànd na ak euh, borom son bi ànd na maturité album bi mm. tamit am na maturité boo xam ne mm-hmm. par rapport ak euh, clash yi fi doon am et tout mais ci dañu ñëw nag ci clash bi parce que mm. man pourquoi j'ai pas encore écouté l'album pour mën a <laughs> discuter pour mën a xam son bi son bu mu mën a bu mu a jël <laughs> attends euh, parce que yéen da ngeen naan game la mm-hmm. game la warul sedd Ah, rappeurs yi dañu dañuy kii day wax fii kii jël fii. ak euh, ak ba mu génnee vendredi albumam on a vu benn rappeur de Reptyle génnee clip ba moom tamit le même jour. Mm. est-ce que tamit euh, yow loolu loolu nekkul genre genre clash wala tu t'attendais à ça. Mm. Mm, genre yooyu noonu di am seen bi waaw man je pense que loolu dara ne aussi en fait c'est normal c'est-à-dire. man dama am sama carrière. parce que dañ la dañ la dañ la dañ dañ la topp dañ la dañ la dañ la xaw a mais mais toppante bi sax dafa am yoon loolu loolu yoon na sax marquage à la culotte boobu c'est c'est c'est bien man je je ça et comme j'ai l'habitude de le dire man rappeur la keneen rapport la ñeneen ñi aussi pareil tu vois et ñun rappeurs yi de manière euh, en fait naturellement on est dans le le dans l'ego trip qu'on le veuille ou pas même boo defee son du ego trip. toujours Egor Sip dafay présent si mhm. intention bi même et la façon de le faire la façon de le sortir toujours dafay présent parce qu'on a toujours envie d'être les meilleurs on a toujours envie d'être ñu euh, ñuy remarquer le plus donc man personnellement j'y vois pas de souci wax dëgg yàlla génne album le même jour. keneen génne est-ce que frustré wu la un peu de voir Samba Peuzzi di <laughs> son clip. non pour lan je sais pas parce que teewul ça fait amul benn incidence amul benn benn incidence bu mu am ci sama sortie mhm. donc euh, non non du tout au contraire gars yi war a génne sax pour mu neex man non j'ai pas amoo souci par rapport ak loolu wax dëgg yàlla. d' accord ba ba ba affaire yi génne nag ba ba son boo xam ba album bi génne aussi am gis nañu ay retours yu ñuy def si si réseaux sociaux yi. Mm. da genre nit ñi wax nañu album bi nice na am na ñoo xam ne tamit duñu d' accord mm. dañ ay ay kii mënoon na gën a togg affaire yi wala xaaruñu woon di et tout <laughs> euh, appréciation publique bi lan nga ko mm. gisee déjà ci album bi. ci ah. côté négatif ak côté positif. Euh, bon je pense que côté ñaar yëpp mënul ñaar muy positif di négatif projet moom. Euh, la kulli àll euh, bu loo ci mënti def xam-xam boo ci mënti def dooleeg liggéey boo ci mënti def boo ko génnee dina am ñu ne baax na ñu ne doob na ñu ne macha allah am na dina am ñeneen aussi ñu la ne bon des na wala quoi qu'il en soit mais wax dëgg fa yàlla yàlla ma tiim quoi man projet ba mu génnee ba léegi ça fait 4 cinq jours j'ai pas vu de du du de retour négatif en fait wax dëgg fa yàlla c'est-à-dire. boo gisee au fait sax dafa am benn genre engouement bu doy waar boo xam ne mosuma ko gis man si gain bi chroniqueurs yi bu ñu leen jëlee par exemple chroniqueur rab yi. Mhm. dem na sax ba léegi ils font ils ont fait euh, ils ont ñoom si seen bopp ñoo déclenché benn genre de challenge boo xam ne dañuy jël titre album bi yëpp di ko di ko rap tu di ko bind ay textes et ça c' est les chroniqueurs yoo xam ne ñoom ak rappeurs yi si tu veux guerre la à chaque <laughs> fois. donc yow je pense loolu rek ça ça ça montre. Euh, nit yi nu ñu jëlee album bi déjà. Mhm. en plus de cela le public euh, macha allah gars ils ont très très bien le prix l'album gars yi dañ ko plébiscité comme pas possible euh, ñi nga xam ne man personnellement mosuñu d'accord ci li may def wala mosuñu kiffé li may def. ñoo xam ne je les vois sur le net parce qu'on voit tout tout tous les posts wala quoi qu'il en soit ñooñu sax laay gis ñu jël album bi di ko dugalaat ne ah Fall wax dëgg yàlla projet bii nii macha allah tu vois c'est c'est donc man personnellement wax dëgg comme j'ai dit gisuma loolu négatif ci projet bi par rapport ak retouru nit yi euh, gisuma ko y a que du positif que du positif. Ah, parce que gis naa la nga ne nga ne sa projet. yeneen ni gënu ko yi fi jot a génn yu fi jot a am bruit. Mm. gënu ko. ah non loolu loolu loolu je pense c'est logique parce que ñu bëri Sénégal dañu ne ak kii fu mu nekk nii doit bosser dafa bi chichi ñu bëri de ah, waaw waaw mën na nekk mën na nekk mais bon je pense que ñu bëri tamit nee nañ euh, macha allah le le le gars il est il est là quoi il est présent il a fait un album excellent il a fait euh, voilà un album bi nga xam ne amoo loo ci loo ci indi en fait loo ci dindi wala loo ci teggi. donc euh, man côté loolu laay gën a retenir. en fait loolu nga gën a retenir ak waaw la positivité bi si gars yi waax bi si gars yi réaction yu ci indi engouement bi plébiscité bi comme nit yi di plébiscité man loolu laa ciy gën gis en toute honnêteté ça me fait énormément chaud au cœur. ok ku wax Akil nag xam ne ne sous région bi dañ ko bëgg moom mm. fait partie des rappeurs yoo xam ne mm. genre moom moo fa ëpp nit mm. ñu koy suivre ñu ko bëgg et ñoom tamit est-ce que album bi egg na ci ñoom pour ñu mën ko déglu. yeah on a on a même essayé même dans l'album certes voilà le, le, le public sénégalais est plus wolof on a essayé de di fa cabaxal leneen lu dul wolof parce que man c'est ce que j'ai toujours fait dans ma carrière voilà à chaque fois damay jéem a laal ay façon son yoo xam ne mhm. disons ñeneen ñi dina leen toucher donc même dans l'album j'ai fait des collabos euh, notamment avec Imra c'est mm -hmm. un Ivoirien donc un rappeur ivoirien très très en place là-bas qui qui qui voilà qui buy tàngal foofu bu baax mhm. donc euh, on a fait un son et le public kiffe là-bas tu vois gars like bu baax a baax lu ñuy def mm-hmm. donc ça me fait plaisir aussi de voir que voilà on, arrive à toucher beneen public bu dul le public sénégal euh, sénégalais cassé même si bu dee mooy suñu public euh, de base Mm-hmm. alors euh, ma ma doon la laajte aussi style bi nga def communication boo xam ne dañ koy froolee rek après mm-hmm. jàll. Mm-hmm. sa sa look bi nga takkal ko defal ko Youssou Ndour defal ko <laughs> Sonko defal ko Abba def ko ak yooyu noonu loolu lan la ñëwee parce que c'est original mosuñu ko gis et puis loolu dafa doon reetaanloo nit ñi et tout. la base en fait c'est vraiment ça reetaanloo bi nga wax parce que je pense que li nit yi di jël avec euh, humour souvent day jàll en fait donc entre nous on a réfléchi à ce concept on s'est dit que ça pouvait bien pour jàllale suñu date pour jàllale l'information de à tel moment le projet bi di génn mm-hmm. de pas juste faire comme euh, on va dire ni ñëpp di def ñëw rek ne ok à telle date l'album sort on a essayé de d'être original comme ni nga waxee détournant ay personnalité ay nit yoo xam ne ils sont ràññee nañ leen bu baax a baax ci seen i domaine ku ci donc ñu jël leen ah ñu bëri ràññee na leen te defoo leen ci affiche bi de man man d'accord ma mënu ñëpp mënuñu woon dem nag ah. loolu mooy problème bi sinon naruñu woon finir ba léegi kon ñu ngi koy def mhm. donc du coup on a juste juste pris ñenn ñi mais surtout on a regardé ñoo xam ne on va dire sur le plan capillaire soit ay ndel lañu am wala ay ay ay lox lañu am mhm. tu boo jëlee je sais pas l'exemple de suñu maam laay wàll par exemple on sait que voilà ndel bi la chaque fois donc tegal ko karaw yi c'est quelque chose bu ñu jëlee l'exemple de Pape Sidi Fall que moom les locks et tout donc on essayé d'amener un peu ce côté comique mais en même temps de de de de de faire passer bien notre message mhm. et voilà d'après d'après les retours on a vu que quand même c'est bien été bien pris c'est bien passé et euh, voilà donc ouais on a essayé d'être original quand même dans la com quoi. ok pour jeexal ci album bi dem ci leneen euh, mm-hmm. su ma la doon laaj trois morceaux ci album bi yoo xam ne. Mm-hmm. nit ñi dañ ko war a déglu coûte que coûte. il faut que ñu mm-hmm. déglu son yooyu. Euh, trois morceaux yi je pense que y a déjà le son numéro 2 comme ni ma ko waxee donc Gordu Joy. il y a le son numéro 3 bi nga xam ne moo tudd liggéeyu ndey. et puis il y a le son. Euh, allez je dirais avec euh, avec euh, avec mon fils tiens <laughs> bi nga xam ne euh, mooy interlude bi. Mhm. c'est le 9.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 Parce que je suis un peu ma baal ma teel a commencé ne naw c'est c'est pas du tout vrai donc euh, xaw ma sax gars nu mu demee noonu non non non du tout. yaa ngi waaj a de. ah man maa ngi samay affaire maa ngi samay bagage bopp.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 <laughs> mais yooyu game bi moom jaxasoo na de. jaxasoo <laughs> lu nekk ci. lan moo ko jaxase noonu. lu ko loo mooy. Euh, tout le monde être numéro un par exemple. ay humeur exactement ku si nekk da nga fi nekk pour nekk au top ku si nekk da nga am sa humeur bopp ku si nekk da nga. da nga bëgg a fëgg sa dënn ne maa fi ne donc c'est clair que day jaxasoo parce que kenn du nangu ni keneen ki moo ko moo ko moo ko mën wala moo ko féete kaw. yow position nga taxawee instant man maay fi ma nekk. foo nekk yow man maay ma nekk. si kaw si si collu ba. yaa ngi ca numéro gu ma damay gën yéeg. day pare damay continuer daal. nga <laughs> baad <laughs> alors est-ce que mën nañu xaar par exemple benn question peut-être nit ñi mm. dinañ ne internet dinañ ne waa kii lu muy laajte ne mais mën nañu xaar mm. benn jour benn duo ak Type Doundou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 dafa bañ mënul ñax loolu force la. lu mu la wax Viviane. Viviane lu moo wax euh, disons que Viviane pour accéder si moom rek coow la déjà parce que foog nga am ay euh, intermédiaires yoo jaaragum. protocole mais voilà <laughs> protocole boo buggee xam nga. Euh, boo demee aussi ba ba ba li ngay jot un projet yi là et, ça se comprend normal Viviane Viviane la daal tu vois c'est pas c'est pas n'importe qui c'est ça se comprend. donc euh, on respecte et puis on se dit que peut-être bu dul yoon yamul ci benn bu dul bii beneen yoon daal. mais découragé woon la. ah non du tout man bu ñëwoon tey na ma ñu def featuring damay daw. Mhm. damay daw ñu dem def featuring bi. parce que j'aime ce qu'elle fait euh, et fil naa dama ko fil musicalement parlant bu baax a baax donc c'est clair que tey bu loolu mënee am euh, wala mu war a am man damay damay damay yàqamti damay dem def ko avec beaucoup de plaisir. est-ce que mos nga refuser kenn tamit featuring waaw mënul ñaax aussi. bu hmm. baax oui clairement. parce que ko kenn. kenn demandé le futur yi nga ne ko non je peux pas faire. si si si si c'est-à-dire bon ñun aussi les artistes am na benn kersa benn yenn saay booy demee c'est vrai que doo ko waxee noonu nit ki doo ko ne. non est-ce ko xeeboon wala yooyu noonu. mais yenn saay di ko comp tu tu lui fais comprendre quand même wax dëgg. ainsi par exemple euh, voilà maa ngi ci lii wala maa ngi ci lee donc je peux pas faire ce featuring ak toi. Mhm. bu ma sañoon ñu xaar ba jamono et tout mais en vrai c'est que tout simplement amoo feeling bi def ko ak moom. donc oui man tamit euh, am na ñu ma koy refuser et c'est normal question de feeling artistique dafa am solo yëg-yëg bi daf si am solo pour man koo bu fa nekkul pas obligé de forcer certaines choses mais aussi faut pas oublier que showbiz lañ nekk ak yenn sa stratégie bi da si baax bu ma gisee ni artiste bi ma def ak moom collabo featuring. ça m'apporte beaucoup. Mhm. yenn saa aussi on le fait. il faut dire les choses faut être honnête donc loolu tamit daf si am hormis euh, yëg-yëg bi et tout dëgg la mais yenn saa yi stratégie bi dafa am. aussi daf si am c'est important mhm. mm. alors lan ngay répondre ay euh, nit ñi di wax ne ba nga mm. jógee Reptile sa mm. carrière dafa gën a law dafa gën a wàcc par rapport ak man je sais pas je leur dirais que bu ma fa jógee bu fekkoon dafa doon law rek comme ni ñu koy waxee ainsi fàtte nañ ma yàgg na en fait parce que quand même ça et euh, je continue d'être là je continue d'être présent donc euh, bon loolu moom je pense wax lay doon rek nii nii nii ci ci ci. parce que rumeur yi il faut ma jox la yëpp. lu mais waaw waaw si la si la non man moom dama <laughs> koy. xam naa loolu bu baax dama koy d'accord sax waaw. d'accord am na ñu tamit ñuy wax ne équipe <laughs> bu mu noon togg di bind moo gën muy solo ak cinq sept tiitaru fii <laughs> dugg na fii dem na fële ah. ñooñu ne pare guñu bind daal na toog di bind di jaay taar. ñooñu pare guñu pour gis ma sax. Euh, mm-hmm. pour naka laa ngay wax lan ngay tontu ñooñu parce que dañu koy wax. en fait li ñu bëgg noonu non man waaw man garaawul man mm. loolu dama ko dégg ba miis ko ba léegi da comme ngelaw ci man quoi ñu ma koy wax. et mhm. puis voilà c'est ma c'est ma personnalité c'est ma façon d'être man j'ai pas de souci par rapport à cela jaay taar ak du jaay taar loolu ku si nekk yaay yaay yaay yaay xam lu la neex nga wax ko li li nga xam ne man xam naa ko c'est que tout simplement je fais de la musique je fais du rap loolu mooy sama sama sama li may def mais à côté li nga xam ne noonu laa mel wala euh, mooy sama façon d'être et tout loolu aussi kenn mënu si dara c'est mon identité du waax wala jaay taar ak yooyu noonu yëpp ñu si bëri ñi ngay wax dis-toi que bu ñu sañoon mel ni ak yi leelu la lay wax <laughs> bu laa bu mel ne <laughs> man ko bu ñu sañoon mel ne bu baax <laughs> alors album bi génn na tey promotion bi nan nga ko faral fas yéene déroulé nan nga mm. fas yéene def loo xam ne parce que defoon nga fi Sorano mm. boobu daloon na après mm. covid bi ñëw et tout di yëpp covid mi ngi ci covid bi nan nga fas yéene euh, def promotion bi ba ñëpp jot ci album bi wala déglu morceau yi. waaw ñoo ngi ñoo album bi génn na comme ni nga ko waxee donc là on est on est sur les tournées médias xam nga ñoo ngi ñoo ngi dem fépp di ko di bu baax di def de telle sorte que ñëpp mën si jot correctement ñëpp xam ne ok album bi génn na mën nañ ko jot fii mën nañ ko amee fee. Mhm. déglu ko aussi hormis cela voilà temps de Covid lañ nekk concert mënul am malheureusement pour ñun. mais on va essayer de s'adapter comme on a fait pour la promo euh, mooy voilà di def ay ay ay peut-être sur le sur le sur le virtuel donc yoo xam ne euh, dina gën a tax ñu tas bu baax a baax projet bi ñëpp mën si jot du tey aussi par exemple là le vendredi à venir donc une semaine après la sortie du projet incha allah war nañu def euh, séance de dédicace boo xam ne tous les fans ñëpp ñuy kiffer ñëpp ñu béggee album ñuy ñuy béggee Akil dañ fay ñëw ñu mbaaj daje fa yaatal waxtaan ils me posent leurs questions en direct ñu waxtaan en tout cas loo xam ne donc loolu maa koy tenir là le le vendredi à venir incha mm-hmm. euh, au Slip Beach donc voilà ya y beaucoup de choses yi nga xam ne on est en train de de de de de de, de le préparer stratégiquement pour mën a jàllal info bi bu baax a baax a baax. Mm-hmm. et je pense que voilà c'est c'est c'est c'est c'est cours daal moo ngi daw. mais da nga xalaatoon benn instant dëkk France bàyyi Sénégal. <laughs> depuis tey maa ngi ñëw damaa laajte ba sonn non bu doon bu doon loolu la moom bu doon loolu def naa ko bu yàgg wax dëgg yàlla bu doon xalaat toog foofu comme ni nga ko waxee def naa ko bu yàgg ko mais bon malheureusement euh, ou je sais pas heureusement euh, parce que quand même sama sama sama benn très très grande partie de ma vie se trouve ici mhm. sama liggéey fii la nekk malgré que am naa fa famille euh, je pense que ma toog foofu mais mënuma fa bañ a nekk aussi fak foog may donc xool naka laay concilier les deux parce que voilà fii la sama liggéey nekk foofu la sama njaboot nekk entre fii ak foofu en tout cas mhm. donc foog mooy dem di ñëw foog mooy euh, gérer les deux en même temps quoi mais non xalaatu gu ma fa toog quoi pour le moment non non mhm. d'accord ñuy wax nag pro Sonko nga question yu kii rek ñuy wax lan la pro Sonko nga <laughs> faral waaw yooyu noonu. waaw Sogone daanaan la de daanaan la de mais bon comme tout citoyen am naa sama avis politique ah. mais noonu la demee Sogone daanaan la. la daanaan la nangu nga ko. non daanaan la loolu foofu la ko gënal. alors dernière question euh, dafa am actualité euh, rappeurs yi bu amee dara ci société boo amee dara ci population bi bu ñu mm. dundee dara mm. ñoom dañ ciy wax. Mm. mais pourquoi ñoom su ñu amee seen problème interne noonu noonu. yéen on voit plus. ngeen mm. wax si da ngeen di mel ni dañuy def sur oreille daal doo leen kenn du leen dégg ci kaawu kilifa dégg gisuñu leen ngeen wax ci ngeen réagir mm. la mm. l'absolu ah, gisuñu la récemment ñu ngi gis kaawu Bril Fight For mm-hmm. gisuñu leen ngeen pourquoi yéen bu ñu amee problème interne vous n'en parlez pas mm-hmm. euh, moi je en fait c'est kilifa par exemple sa sa sa sa xalaat ci loolu waaw c'est un peu mélanger les choses en fait tey am na loo xam ne c'est vrai que c'est c'est quand c'est du domaine artistique pour man artistes yi ku ci mën a en tout cas rappeurs yi ku ci mën a am dara da ngay gis ñëpp dañ koy taxaw loolu eh, kaawu Julio Lapsol yi comme ni nga ko waxee pour man firndeel na ko mhm. euh, da nga cité donc je vais aussi citer Kilifeu nga wax mhm. Kilifeu je pense son cas aussi à moom euh, quoi que l'on dit c'est loo xam ne la pour man euh, même bu dee kilifa ça reste benn personnalité publique loo xam ne la ça reste du domaine euh, privé pour man ah ça sama sama considération la ça reste du domaine privé loo xam ne la moom euh, ak ñi ko ñi mu ko war a gérer ndoo ñoo ngi koy gérer man je vois pas la laa war a mun a prononcer aussi loolu wax dëgg yàlla mm-hmm. euh, et puis ainsi de suite ainsi donc man pour man quand il s'agit de quelque chose bu ñu war a wax nañ ciy wax mais bu fekkee loo xam ne la wax dëgg yàlla man ça me concerne rien du tout <laughs> je vois pas la laa ciy wax daal man mm-hmm. c'est ça en d'accord alors ñu ngi lay jaajëfal kontaan nañ ci dalal la fii Sénégal kontaan naa ci dalal la parce que euh, rappeurs yi en général bu ñu waxee jigéen mooy def interview ah non non non non ay questions yu bët rek la ñuy laaj. xale non non man man maa ngi dindi loolu nag. voilà voilà c'est important tamit ngeen ñuy accordeel ñun ñu dem ren jigéen tamit ñuy def interview tamit ak mm. rappeurs yi pour mën a xam. clairement en man man man surtout man maay dindi. préjugé yooyu di nga xam ne jigéen la kon forcément du du intéressant c'est totalement faux mm-hmm. parce que ça a été intéressant question yi am na solo et euh, ça a été dynamique Et euh, voilà j'ai apprécié man personnellement c'était très très intéressant donc gars yi nangu leen interview show yi ñoom ñoo yor question yu baax yi ngeen soxla sax <laughs> d'accord ñu ngi lay jaajëfal koy ak si album bi merci bu baax kan ngay remercier ak sa fan si lan nga leen euh, wax waaw waaw album bi donc dine voilà disponible na naka gars yi dem déglu fépp c'est c'est disponible sur les plateformes de streaming dañ dem streaming album exactement euh, disponible na aussi en physique aussi am na ay am na ay Euh, ay ay ay CD tu vois pour que gars yi jëm jënd ko directement s'ils veulent et aussi voilà di di di di di remercier ni ko gars yi recevoir ni ko gars yi accueillir ça m'a fait euh, énormément plaisir wax dëgg yàlla et ça continue de me faire très plaisir donc euh, engouement bu ci gars yi am donc dine voilà c'est c'est c'est ça vient de commencer pour moi c'est un nouveau chapitre bu ñu ubbi ubbi donc euh, que l'histoire continue et que l'histoire soit belle inchallah. Mmh, merci beaucoup merci beaucoup. Okay.